man ci démb laa ne. li ma wax daal leer. ñu xam nga problème mooy lii ah, loo am fecc. da ngay diri rek dem diri wàcc yi <laughs> loo am rek da ngay fecc bokkul ak démb eh, démb eh, foo eh, condition bi du fecc bu de. taxaw rek ci laalo <laughs> démb boo amul condition da fecc. Ah. boo feccee ba da ngay nii ngay de mu njëkkoon da ngay wiccaxu sànni. démb ah, waaw yee boobu da ngay jug ban yaakaar ne nga wàcc. am booba dagga wàcc amoon na fi waaw non Youssou wayoon na ci way woo xam ni dafa doon laaj ay dem yu sori waaw kii bi duuta mun na duuta mun na bi mooy banati kaay daam njaag ma taar ku ma faatim joor wama naar ku ma faatim joor billaay dikku ma faatim joor li laani sangoo ne bay ñu li jàngi loor walo walo bañ ñu ku kay tooñu bañ ñu ngooji gu looy bañ ñu ngooy bañ ñu ku ne waaw yow comme àll new fi yaay jël place su àll waaw Eh, ay bay kii taxaw lii la li de eh Youssou ngi lay seetaan. lii loolu wa an kay waa kër ba ngeen seetaan noonu la eh, ba ngeen ne keroog nag Youssou ngi seetaan moo seetaan noonu moo teral kay léegi moo teral kay déglu yow eh, xool naa la yow moo bay turando Youssou bi ni ma woo wayaatal way wi wayaatal way wi correctement léegi ñu envoyé ma SMS wayaatal way wi correctement ay turandoom ñooy seetaan wala wala indiwaat ko indiwaatal boo ko andee tamit ñoo <laughs> ñëwul ah, yow aba bàyyi ma nga ni bàyyi ma aba bàyyi ma léegi <laughs> nga ni fu nekkoon ci yuusu nga ni. njag ma taar la loolu daa dem ba la woon. man kay mën naa teel temps moom di aw. njag ma taar ku ma fatim joor. mën naa taar ku ma fatim joor. Eh. billaay li ku ma fatim joor. li waa ne sàngoo ne ma ñoo ni jàngi loor. Eh. yuusu wala walo ba ñu ko koy tooñoo. waaw waaw ba ñu ngooy bu ñooy ba ñu ngooy ba ñu. waaw. mënumaa oh, dem mënumaa dem mënumaa dem non non xam nga nag Youssou Ndour ah seetaanuma ay turandoom moo non amul dara am na lu ko metti téye wayam ma téye sa way eh, non non <laughs> eh, dem ci ki nga xam ni mooy Ndongolo vraiment faaw nga rendre ko hommage mënul ñàkk waa Ndongolo ndeysaan boo ko waxee eh, sama yaram day daw tuuti mm-hmm. parce que dama ko daan dem di ko seetaani mm-hmm. euh, yàlla ko yàlla yërëm mais ci bi ngay wax naatu moment mën naa laa dog euh, xool kan moo ne ci ligne bi waaw mën naa ne yow mi nga xam ni yaa am nga 88 628 20 20 wala 22 22 65 65 mën nga euh, woote ma dog Mamran balaa may euh, ñëwaat ci moom di ko jël parce que mu ngi doon dugg ci ndongo di wax lu am solo waaw ndongo ba pare boo pare ñu dem simb si waaw loolu dafa mel ni plateau bi ma gis ñu toog ni bu subaa dafa nar a amaat donc moo tax li duuf ci nag bi yëpp xajul ci ci ne te léegi trois heures jot donc te Assane dafa war a yëngalaat fa leen waxtaan ak moom tuuti waaw donc xam naa dañuy mos tuuti rek daal di mosaat da ci dul xaj ko waaw ndongolo ndeysaan euh, dafa nekk nit koo xamante ne nii bi demee la ko ñëpp xam dëgg la dëgg la waaw ndax euh, ci mbëggeel ak loo mën a laal rek way na ci lu bari dëgg la way na fii bu njëkkoon da ngay bëgg nit mu bëgg la waajur yi bañ ñu naan liggéeyal laa mbaa giir la mbaa joola mbaa soose naa la gi walla mbaa tukulóor la mbaa joola la mbaa soose way léegi si yaay guub waaw waaw waaw <laughs> eh, maam laa <laughs> mën nga maa may lii bàyyi li ngay def